xamiin wu mel nii mooy xamiinu yàlla ku bokkut ak moom nag mooy seet la ko soob ci xam-xamam boobu rek mu xéewale la ko degam nag alxilmu xam-xam aw melo la du ñàkk fu mu aju fu mu aju mooy la ñuy xam moom lay wax naa maalumu shay'in lu ñu xami dara kullu ma mooy lépp loo xam ne yasluhu dana yiw an yu'lama bu dee fi xam ko min ahkaami xaqlin ci àttee xel fii zamanin ci jamono min waajibin ci aji war wa jaizin ak aji dagan wa mustaxilin ak aji jomb fa xayruha lu dul ñoom dëha jommal na safiihan aji deseedi wa nabiiran ak aji xellu xam-xam mënta ñàkk fu muy aju ni ma ko waxe woon léegi te mooy la ñuy xam la ñuy xam moom nee na dafa yaatu ndax lépp lu ñu mën a xam rek dugg na ci waaye boo ko dee seet mënta génn yett yi la ñuy xam benn muy lu mënta ñàkk mbaa muy lu jomb mënta am mbaa muy lu mën a am mën a ñàkk yett yi moom dara mënu koo génn lu bokkute yett yi ka ëpp xel tenewu ca ka gën a gàtt xel yett yi dong moom ñoo fi nekk léegi nag yàlla xam-xamam boobu kon aju na ci mboolem yett yi lépp lu ñu xam rek yàlla xam na ko na mu doone xamit wu mat sëkk-sëkk mànkiwul ci genn genn wet te it noo ko mën wëlbatee rek mu xame ko na mu doone xaqiqatul kalaami dëgg-dëggi kalaam maanan maanaa la xaama moom taxaw na bi daati man ci jëmmi yàlla mi nga xam ne xadd aw jada amal na al anaama mbindeef yi mu abbaran mbir mu muy lu ñu firee an huwalis ko bimaa ci la nga xam ne xad ixtalafa wuute na minal xibaaraati ci xeeti waxin yi xalaa qawli salaf yi ci waxi dawal ba dalay xamal buñ ne yàlla amee nag wax luñ ca jublu mu ne la nee nañu mu ne waxinu yàlla de moom ni nga umpalee jëmmam rek noonu nga koy umpalee doo mën a xam dëgg-dëgg yi waxinam waaye nag lam bëgg a jot li mbindeef yi ci waxam dana ko jaare ci ay yonenteem bu leen jottalee lam bëgg ñu jottali ko ñoom yonente yi nag ñoo koy jottalee ca seen làmmeñu bopp ni ki tawraat ak linjiil ak zaboor ak mboolem téere yi nga xam nee nañu wax yàlla jëmmi yonente ba yónni woon ci boppam rek mooy jottali wax yàlla te jottalee ko ci làmmeñu boppam nga xam ne kon wax ja wax yàlla ci kaw maanaaya wax yàlla waaye baat yi moom daa bàyyi ko ci yonente yooyee ba mu des nag alquran alquran moom wuute na lool ak téere yooyu ndax baat yi nga xam ne moom ngay jàng itam dañ koo sax yonente bi mu jotlee ko niñ ko ko saye yokku ci wenn araf wàññiwu ci wenn araf kon alquran wuute na lool ak téere ya ca des mu bàyyi nan mbir mu muy aji faccoonte faccoonte mooy sorente maanaam wutante ay don ba tey li jinsil xaraf yi ñeel xeetu araf wa sawti ak kàddu wal fikrati ak xalaat duuna xulfin ci dul benn wute munazahan tey lu ñu sellal xan laxnin walis yàq aw tajaddudin wala ak yees ak yeesaat wal kulli ak lépp wal baax ak lenn wa bit taraddudi ak ci ak déng-déngi waxa kasa niki nii at taxiru yeexe wa taqdim ak fuk jiital wa sumtu ak noppi wal inraabu ak inraab yaa xamimu yow xarit bi waxayru sii ak yu bokkut ak yii minat taxayuraati ci xeeti soppiku yi subhaana rabbi tudd naa selluk sama boroom alkaamili sifaati mi aji mat ay melo waxi suñ boroom moom du bokk dara ak waxi mbindéef waxi mbindéef day am araf am kàddu di ànd ak xalaat wax yàlla nag amul araf amul kàddu amul xalaat ba tey waxi mbindéef daañu wax ne na waxee jub na mbaa dafa yàq na waxi jubut mbaa bu dee wax wax ja yees ak a màggat niki muy sawar ak a tàyyeel ak a sonn muy feeñ ci waxin wa ak mbindéef bu dee wax ñu ne li wax day daa ëmb lépp mbaa ñu ne moom ni daa wax lee bàyyi lee mbindéef bu dee wax dana déng-déng ci dana wax lii am du wax lii ba tey wax mbindéef dana di am lu mu jiital ak lu mujje ba tey wax mbindéef faaw mu noppi benn mu wax ba àggal daal noppi ba ci biir wax ja sax day am ak noppi li ñuy wax inraab analyse wax ja am nuñ koy tegalee noo xam ne ku ku ko tegalewul noona ñu xam ne awoo ca yoon wa bu dee ci arab moom ñu gis inraab ni muy feeñe ci mujj baat yi jëmmi benn baat bi bu taxawee fii rek ak mu jëm maasle bu taxawaatee feneen maasle lu bokk tëg loola yu mel nii ak mboolem yi nga xam ne moom nga xam muy feeñ ci waxi mbindéef amu ca dara dara dara lu cay jege wax yàlla yàlla moo sàkk lépp lépp lépp waaye dafa wuuteeg lépp lim sàkk nuru wuuteeg dara dara ci genn wet tumma alxayaatu topp alxayaatu sifatun aw melo la xaddu saxahat wow wéral na idraaka zaatihi jotug jëmam ja faqat dong kama sabata naka mu saxe li zaaka ngir loolu lam taqtadi sakkuut zaidan jenn aju dolli ko xalaa qiyaamiha ci taxawam nga bi zaatihi ci jëmam jëmam yàlla jàlla màgg na xalaa kawe na fa kullu wasfin wépp melo it laa yoroomu oo du sàkku zaidan ndolleen fa laysa daa taxalluqin déet muy boroomu aju ku nekkal raashidan di aju jub daa waxoon ne melo yépp am taalluq ba mu des alxayaatu mu ne xayaatu day melo woo xam ne mënta ñàkk ci jenn jëmm ñu door a mën a wax ne jëmm ji mën naa jeexital ci dara dund moom jëmm ju nekkul rek du mën a am leneen lu mën a jeexital jëmm ju dund nekkul moom def ci mën a teg weneen melo yi jeexital kon jëmmi alxayaatu melo sax ci sunu boroom waaye nag sakku lu cay yokku gannaaw bam saxee ci jëmm yàlla ju tedd ja te bépp melo bu demee noonu dañuy wax ni amul taalluq faslun li ab dog la fil xusuusi ci jagoo ga wal xumuumi ak matale ga alxusuus ak alxumuum day dellu ci ni nga doon waxee léegi melay suñu boroom yi ni ñu amee ak aju alxusuusu mooy boo dee xool ni melay ajoo ci seeni ajukaay am ca foo xam ne yaari melo ci misaal dafay tase te yeneen du leen fa mën a fekk si am itam yeneen yaar ci misaal am fu ñu taxaw foo xam ne yaar yu jëkkee ñoom it du ñu leen mën a fekk si boo weesoo foofu nag ñoom ñëpp ñu am fu ñu bokk tase te kenn du mën a dàq sa moroom saa yoo xam ne melo yee ñoom rekk ñoo aju foofa loolu moo tudd alxusuusu fi ñu bokk tase nag te kenn mënta dàq sa moroom moo tudd alxumuumu loolu nag daa am nañ koy làqarcee ci seen biir moom lay bëgg a wax wa bayna haadihi nekk na diggante yile xusuusun ak jagoo wa xumumun akuk matale bil wacc yi ci ak anam wal italaaqi akuk boyal xinda dil xumumi fa boroom xam-xam ya bil wacc yi dafa dellu ci xusuusun wal italaaqi dellu ci wa xumumun jooju diggante melo yi daal am nañu xusuus ak xumum ci ni ma ko leerale léegi te moom lay bëgg a teqale fa xussa na nga jagleel qudratan kàttan iraadatan ak nameel ma an mboole seen bil mumkini ci aji mën a am ja almaadoomi jar ju ñàkk taqfu kon nga xeyntu baa kon nga topp mën ka nga xam ne waa wattu na xam-xam wa xussa na nga jagleel basaran gis samhan ak dégg ba moo joodin ci lu am xadiimin li aji jiitu ñàkk a tàmbalee fenn duunahumaa ci lu dul ñoom ñaar ñee nga jëkk a wax muy qudratu iraada fa yardaaka ba mu lay gërëm arrahimu aji yërëme ji wa ummahaa na nga leen matale aydan ba tey bi moo joodin ci lépp lu am xadasa loolu sosu na kasaa'iril xalq yi nekki mboolem mbindeef yi di xaw li man ci waxi ka nga xam ne baasa gëstu na xam-xam boo ko seetloo nee na boo tuddee loo xam ne yàlla mën na ko amal te amalu ko qudratu kàttan ak iraada coobare ñoom ñoo fay ñëw ndax nee nga woon ñoom aju nañ ci lépp loo xam ne rek lu mën a am la kon nag boo tuddee lu mën a am waaye yàlla amalu ko xudraat iraada daal di ñëw taxaw waaye nag dégg ak gis ñoom duñ mën a ñëw foofu ndax da ngaa waxoon ne dégg ak gis lu am rek lañ aju mooy lu amut mëne su koo dégg mëne su koo gis boo tuddee nag lu am ba noppi dalewul fenn te loolu mooy yàlla ak i meloom ak i turam sam xoog basar mu dégg ak gis daal di ñëw taxaw waaye nag qudratu iraadatu duñ mën a ñëw foofu ndax xam nga ne kàttan ak coobare ci mbindeef nga waxam ne ca lañu aju te xam nga ne jëm yàlla ju sell ji ak ay meloom ak turam du mbindeef kon sam xoog basar dégg ak gis buñ taxawee ci yàlla mi am te dalewul fenn ñoo koy jagoo xudraak iraada duñ mën a ñëw foofu nga xam ne kon yaar yee jagoo nañ fee yaar yee jagoo fee am na nag fuñ bokk tase mooy boo tuddee lu am ba noppi te dale fenn niki mboolem mbindeef yi yépp dañoo sosu am ba noppi dale fenn yooyu nag moom yeenti melu yépp ay jëkk ndax dangaa waxal ne qudratu ak iraadatu aju nañ ci lépp mbindeef te li nga wax mbindeef la sama xaw basar ba tey dangaa waxoon ne aju nañ ci lépp lu am te gis nga lii lu am la day mbindeef rek dalee fenn waaye lu am la kon nag gis nga ne xusuus ak xumoom noonu lay demee meloyee aju fee seeni moroom bu mën a ñëw yee itam aju fee seen borom du mën a ñëw ñu bokk nag tase fenn foo xam ne ñoom ñëppay ñëw te doo mën a dàq kenn wa baynal uule yooyu ni nekk na diggante yaar yu jëkk ya wal xilmi ak xilmi alkalaami ak alkalaam aydan ba tey xusuusun ak jagoo waxu moomun ak matale yaawu laa man yow as ngóor ba tey boo dee seet yaar yi nga jëkk a tudd muy al qudratu ak al iraadatu ak yaari yi muy alxilmu ak alkalaam ñoom itam seen diggante am na xusuus ak xumoom ñu leeral ko mooy waxu sa na nga jagleel alxilma xilmu wal kalaama ak kalaam yaa fataa yotam si di waajibin ci aj war wa mustaxilin ak aj jomb sabata jot sax na li ànd na tey ni que ngir naka yooyu yaar taxallaqa aju woon nañu bi maa ci loo xam ne nii xad am kana jàppandi na wazaani te yi la yaar lay saa deet ñoom ñaar moom ci nan ñi aji jàppandi maanaam daal bu ñu mbindeef waxu ma na nga matale dil arbax yi la yent yaa la bi bane aji xel di kulli jaayisin ci jëpp aji dagan te kon kon nga nekk moo siy ban di aji jam jub jam jub mooy wax lay dëgg nga dale boo tuddee waajib maanaam lu mënta ñàkk ak mustaxil lu jomb al ilmu ak al kalaam daal di ñëw taxaw wax da ngaa waxoon ne ilmu kalaam ñoom aju nañ ci lépp lépp lépp waaye su boobaa nag al qudratu ak al iradatu bu ñu mën a ñëw ndax da nga ne woon kàttan ak coobare moom ci mbindeef rekk lañu aju te xam nga ne waajib lu mënta ñàkk ak mustaxil lu jomb daa wuteeg mbindeef ndax mbindeef mooy loo xam ne mën naa am mën naa ñàkk kon nag foofu alxilmu ak alkalaam ñoo fa jagoo waaye xudra ak iraada mënuñu faa ñëw boo tuddee nag jaayis aji dagan maanaam lu mën a am mën a ñàkk ñoom ñeent ñëppay ñëw te doo mën a dàq kenn loolu mooy xumoomu ndax boo ne jaayis ni ki mbindeef rek yem ci xilmu kalaam moom mënoo leen dàq ndax nee nga woon aju nañ ci lépp lépp lépp lépp ba tey xudra ak iraada it dooñu mën a dàq ndax ñoom da ngaa waxoon ne aju nañ ci bépp mbindeef xam nga ne jaayis aji dagan mbindeef la wa bayna xilmin nekk na diggante xilmu wa kalaamin ak kalaam wa basarin ak basar samhin ak samhu xusuusun ak jagoo wa xumuumin ak matale yoo tabaru boog def na ko xalam ba tey boo xoolaatee diggante alxilmu ak alkalaamu ci wet xool itam seen digganteeg albasar ak asamhu ci wet daal di gis ne daañu am fu ñu tase daañu am foo xam ne buñ fa mën a tase mu daal doon xusuus ak xumoom mu leeral ko xussa jagleelal kalaaman kalaam suma ilman topp xilmu yaa xalilan yow ab xarit bul mun ki ni ci aji mën a am ja almaqdoomi jar ju ñàkk tumbal mustaxili topp aji jomb li ànd na samxan ngir naka samxu basaran ak basar taxallaqa aji woon nañ ñoom ñaar bil mooy jóodi ci lu am rekk lu koy nu zeyni te nekku yile yaar laa yuraa def ko gis waxul maha da ngay matale bi kulli mooy jóodin ci lépp lu am te kon kon nga nekk mu waxid arrahmaani di aji wéetal aji yërëme ji yaaman yow mi nga xam ne xadd fattu na xelu na boo tuddee lu mënoon am waaye yàlla amalu ko mbaa nga tudd lu jomb xel boo kalaam moom daañ ñëw taxaw te dool mën a dàq ndax ñoom ñaar da nga ne woon aju nañ ci lépp lépp lépp lépp waaye nooyu jamono sam xoog basar buñ mën a dikk ndax dangaa waxoon dégg gis moom lu am rek la ñu dégg ko gis te yaar yi nga wax mooy lu mënoon am te yàlla amalu ko ak lu jomb loolu nag kon dégg gis bu ca mën a am ay yoon kon gis nga ne foofu yaar yoo ñëw na taxaw te yaar yoo mënuñoo ñëw loolu xusuus la fañ bokk tasee nag mooy boo tuddee lu am rek boo tuddee am mooy jóodu lu am lu am moom boo ko waxee li mu kalaam daañ ñëw ndax nee nga woon ñoom aju nañ ci fépp fépp fépp sam xog basa dellu ñëwaat te bi yoon loolu mën a dàq ndax da nga ne woon dégg ak gis moom ñu ngi aju ci lépp lu am te li nga tudd moo di lu am kon loolu mooy xumoomu ñun ñëpp ñu bokk tasi foofu tuma kalaamun topp kalaam maxa xilmin ànd ak xilmu attawolu ñoo gën a gudd taalluqan ci ak aju min xayriha ci kulu ñoom yaara juli o waaji min xayriha daay max naam min xayrihima bu ngir xulliqaa ajeef na leen ñoom ñaar bi kulli waajibaatin ci mboolem way war wa mustaxilaatin ak way jomb wa jaisaatin ak way dagan boo dee xool nag melo yi niñ gën a yaatu xantee ay làng ci wàllu aju googu da nga gis ne kalaamu ak xilmu ñoo gën a yaatu ak làng fu ñu dem fu ñu aju ndax dangaa wax ne ñoom aju nañ ci lépp lépp lépp lépp amul fenn fuñ aju bàyyi fa ca des ak suruha gën jaa gàtt seen taalluqan ci ak aju samhun mooy samhu basarun ak basar is ngir xulliqaa ajeefoon na leen ñoom ñaar bi kulli mawjoodin ci lépp lu am jahara lool feeñ na boo dee seet nag yi ci gën a gàtt ak làng maanaam yi ci gën a gàtt fuñ aju mooy samhoog basar mu dégg ak gis ndax ñoom da ngaa wax ne lu am rek lañ mën a dégg gis ko waaye lu amut mëne su koo dégg mëne su koo gis aw satuhaa gën jaa diggu seen gën jaa diggu seen mooy gën jaa diggu doomu seen taxal lu xam ci aju xindal xalami fa boroom xam-xam bu siiw ba qudratuhu mooy kàttanug yàlla ga tumal iraadatu topp na mel ga na xam waaw li ànd na kullan ngir naka képp min xumaaj ñoom ñaar taxal la xat aju na bi xis mayil mumkini ci ñaari xaaji mbindeef fi maa ci la nga xam ne xadd sabata sax na boo seetee nag al qudratu ak al iraadatu ca nañu ajoo dafa digg doomu rekk guddewul ne xilmu kalaam nañ guddee fiñ aju waaye ba tey gàttewul ne sam xoog basar nañ gàttee fiñ aju ndax kàttan ak coobare muy xudra ak iraada dañoo aju ci ñaari xaaji la mën a am ndax la mën a am na nga ne woon yaara la la mën a am te yàlla amal ko ak la mën a am te yàlla amalu ko ñaari xaaj yépp nag xudra ak iraada kàttan ak coobare dañu caa aju ndax la mën a am te am yàllaa ko amal ci coobareem ak kàttanam la mën a am te amut it yàllaa ko ñàkkal mu bañ a am ci coobareem ak kàttanam xajintaxaa jeex na taf siilu naa sunu teqale maa lépp loo xam ne lil jëli li ñeewoon na aji màgg ji fal nan sarif nanu wëlbatikuwaat mun ba aji haa ci gannaaw waaye nag mun ba aji yii mu gën a yelloog maama mu nekk ci lil jalili lil mustaxili jëm ci aji jomb ja kon nag nee na ñaar fukki meloy mat yi nga xam ne mu aji woon ci sunu boroom te mënta ñàkk wax nañ ko teqale ko ba mu mat sëkk-sëkk kon nag nan jàll waxal la ñaar fukki melo yi nga xam ne ñooy safaani yooyu di meloy manki te jomb ci sunu boroom faslun li ab dog la fii ab daajil xishriina ci safaani ñaar fukk ya wa yastaxilu dana jomb kun ñaar fukk kaaf la ci jublu mooy ñaar fukk mina sifaati ci ay melo fii xaqi rabbi kulli mumkinaatin ci aq yi buurub mboolem mbindeef yi wax yee ñoom ñaar fukk yooyu ab daajul ulaa ñooy safaani ya nga xam ne taqaddamat jiitu woon nañu moo jabatan mbir mu ñu lu ñu waral mbaa ñu lu ñu saxal li rabbinaa ñeel sunu boroom wa usbitat te saxaleef leen nee na am na ñaar fukki melo yoo xam ne moo safaanoog ñaar fukki yee nga weesu woon ñaar fukki yi moom te di xeeti matadi ak i manque yoo xam ne xel mu sell da koy jombale sunu boroom xaqiiqatu di dayni dëgg-dëggi ñaari safaan maana yaani yaari maxnaa la ixtalafaa yow wuute nañu xatxan ci dog ba ci lu amu warante wujjoo di yaani yi ko jóg am wala yekkoo naa ni te duñu nekk xalaj ci maahin ci daje fii ay mawdihin ci buubu ci béréb xalal ijmaahi ci daje ko fóore yi ne boo déggee yaari safaan mooy yaar yoo xam ne dañoo wuute wuute goo xam ne mënuñoo bokk tase mukk mukk mënuñoo bokk tase mukk amandoo benn yoon ci benn béréb mel ne am ak ñàkk yàlla day wax ne am na baa ñu ne amul rek waaye boole am na amut moom mënta nekk lu mel noonu mooy ñaari safaan alxadamu ñàkk alxudoosu akuk sosu buru ul xadami ak rotuk ñàkk tamaasulun akuk yamonte lil xaajisaat ñelwee sosu ya foofu xam na nga dégg daa tàmbalee wàññi ñaar fukki yi mu tàmbalee ko ci yàlla di lu ñu wax rek waaye amut da nga ne woon loolu la jiitu ci gëm yàlla mooy nga gëm ne yàlla am na bu wër a wër kon nag ñu koy wax rek waaye amut loolu jomb na ba ca toppoon mooy yàlla dalewul fenn kon nag alxudoosu yàlla sosu dale fenn jomb na ci moom lim tuddi fii nag turul xadam rotu ñàkk mooyem ak alfanaaw jeex maanaam lu am ba yàgg wëlbatiku jeex lu am ba yàgg wëlbatiku amatut loolu mooy jeex jomb na ci yàlla xaqiqatul xadami dëgg-dëgg ñàkk fi qawlil fatini ci waxi aji xellu ja xaybaaratun aw waxin la wala aw firiwiin la xan kulli shay'in walis mépp mbir laayekoonu moom bu am lu ñàkk moom nee na yow mën naa xamle lu ñàkk mooy lu amul rek lépp loo xam ne amut donte ñu koy wax waaye ci dëgg-dëgg amul rek loolu mooy alxadam xaddul xuddoo si dëgg-dëgg yi sosu xul waxal ne wujoodun moo di ak am xasala bak am na bax dan xidaamin ci gannaaw lu ñàkk kal baraayaa ni ki mbindéef yi fàqilan na nga xellu sosu mooy loo xam ne amutoon gannaaw ba mooy bëttiku am mel ne mbindeef yi amuñu woon daa soob yàlla mooy bëttiku amal leen nga xam ne ak ñàkk am lañ njëlbéene woon door a am na ci gannaaw ba loolu moo di ak sosu waxaddu tur i xadamin dëgg-dëgg yi rotu ñàkk xuma moom alxadamu mooy ñàkk ga baada wujoodin ci gannaawuk am saabiqin gi aji jiitu xindal xàkkami fa aji atteña la mu tuddee tur ul xadam te mu yem ak alfanaaw jeex la wax ne mooy loo xam ne amoon na gannaaw ba mu wëlbatiku ñàkk ba mel ne amutoon loolu nag mooy dal mbindeef mbindeef gannaaw bu ko yàlla amalee da wëlbatiku ñàkk ba mel ne amutoon loolu mooy alfanaaw jomb na ci yàlla amal mumaatalatu ndaal yemoonte ga lil xawaadis yi ñeel way sos yi fa xadduha ab dëgg-dëggam xinda sharif yi fa sharif ba sharif aji tedd mooy sëtu yonante albaaxis yi kay aji gëstu nafyul muxaalafati mooy dàq wutante ga fi sifaati ca melo ya xaqan ca dëgg-dëgg wa fil afaxaali ak ci jëf ya xul waxal ne waddaati ak jëmm ja danga waxoon ne suñu borom kat moo sàkk mbindeef yépp yépp waaye juróomu caag dara rawante na mu cey yemoon teeg dara mu ne nag saa yoo ne yàlla yemoon ak mbindeef ci jëmm mbaa ci melo mbaa ci jëf rek kon wax nga safaan ba yàlla jàmm na ci moom mu yem ak lenn ci mbindeef yi du ci jëmm du ci melo du ci jëf waaye nag yemoonteeg yàlla ak dara ci lim sàkk mën nañ koo tënk ci fukk yi nga xam ne moom lay bëgg a leeral ba tax mu ne aw juhuhaa ay anamam moom yemoonte ga xinda sanoos yi fa asanoos yi tuxaddu def na leen lim xasarat mbir mu ñu fukk duuna kaxaa na nga leen jàpp yaa mën yow mi nga xam ne naqada gëstu na xam-xam fukk yi mu la bëgg a wax nee na lu ci am rek ci yàlla mu daal di yemoonteeg mbindeef ndax fukk ndax fukk yi yëpp mbiri mbindeef rek la bi an yekkoo na ci mu nekk jërëman di jëmm ju ne léeng ay lemu ci namm te akusu dana jàpp daatuhoo jëmam ja minal faraaxi ci jaww ji xadaran ab kem man basan ab yaatu yaatu bi jëkk ci fukk yi mooy nga ne yàlla nekkul jëmm ju ne léng jëmm ju ne léng ju ne nag faaw du ñàkk bërëb bum nekk su ko defee nag na jëmmam toll ci rëyaay wala ci tuutaay wala ci diggu doomu lu toll noona lay jël ca barab bam nekk alvaraaxu day firi jaww alhawaawu di firi jaww ak aljawu ji nga xamee ne wala fi noonu lañ koy waxe benn ngoog mooy nga ne yàlla nekkul jëmm ju ne léngu joo xam ne barab ba mu nekk faaw mu jël ca mu tolloog jëmmam ثم الفراغ باب الفراغ قد حوالقنا أسماء أي طر الجو جو والفراغ أك فراغ والهواء أك هواء الفراغ بيفري جو الهواء